yonenté nga bok woon de kam dafa am ñuko ko ne ko lasta mursalan bu fekkon lool nar waron nako métti yàlla mi nga xamne mo bind ñëpp ne ko ne ko wa innaka la minal mursalina xelam war dal kon neena tilka rusulu yoyé yonent faddal gënale nañ baadahum ñenn ci ñom ala baadin ci ñeneen ña kon gënante mënta ñàkk ndekk yonent yi sax dañoo gënante kon kenn ku nekk yàlla day def léeg-léeg nga am loo ëppale sa morom minhum am na ci ñoom man kallama allahu koo xam ne yàlla waxee na ko loolu ci ay mayam la bokk ku mel ni yonent yàlla Muusa wa rafaa yëkkati na baadahum ñenn ci ñoom jaatin ci ay daraja ku mel ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallama nga xam ne yàlla beral na ko ci ay ngëneel loo xam ne moom rek la ko yàlla jagleel loolu liñ ciy jàngeekat lu dara lu mooy rek ne ndekam yonent yi ñoo am gënante ci seen biir kon ñëpp a yem moom waxin la rek ñëpp yem waxin la waaye yàlla sax ci boppam xamal nañu ne ñëpp yemuñu kenn ku nekk ak la ko yàlla may bokk na ci li yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallama li ko yàlla jagleel mbooleem yonent yi ku ci masa soxla yàlla daf lay jox rendez-vous ci benn place soo demee foofa lay wax ak yow yonent yàlla musa yàlla da ko joxoon rendez-vous ci tuuru Sinaate moom moo demoon yonent yàlla Muusa kon boo xoolee am na lu jaar diggam ak boroomam mooy barab bi ci boppam te moo dem yonent yàlla ibrahima moom it moo dem inni daayibun ila rabbi kenn ku nekk moo jóg di dem waaye yonent yàlla muhammad salallahu alayhi wa sallam moom yàllaa ku inviteel boppam subhaana alladi asra bi abdihi laylan min almasjid alxaraam ila almasjid alaqsa yonent yëpp ba bokk na ci liko ko yàlla yàlla jagleel yonent yëpp kenn ku nekk bala yàllay woo dafa jaar ci sa tur wa yaa aadamu yaa nooxu yaa ibrahimu yaa muusa yaa isa kenn ku nekk ci sa tur wala jaar direct wante moom bu ko yàllay woo daf naan ko yaa ayyuha rasulu yaa ayyuha nabiyu yaa ayyuha almuzammilu yaa ayyuha almudassiru du jaar ci digg aw looloo tax bàyyi ba mu koy tagg bokk na ca lam ko waxoon inna xatmal ambiyaa yi faaka arsalan biyaa faaka am na ñaari firi yoo xam ne firi nañ ko ko bokk na ca nag mooy rawee na yonent yi bi i ci yaawu ni daa ñoom ñëpp dañ naan yaa daawudu yaa isa moom ñu naan ko yaa ayyuhan nabi kon loolu bokk na ci lim leen rawee ak yeneen i mbir wa ataynaa joxoon nañ isa na maryam al bayinaati lay yu bir wa ayyannaahu ñu dëgëral ko bi ruuxal qudus ci ruuxu gu sell te mooy jibril muy ànd ak moom fu mu jëm mu jëm fa walaw shaa allahu bu neexoon yàlla maqtatala konoon du xeexoo alladina ñi nga xam ne min baadihim ñëw nañ seen gannaaw gannaaw bu yonent yi ñëwee bu neexoon yàlla duñ fi nekk ñoomu neen di xeexoo walakin waaye ixtalafu uute nañ te loolu ci coobare yàlla la fa minhum am na ci ñoom man aamana ku gëm sax ca ngëm ga wa minhum am na ci ñoom man kafara koo xam ne weddina ولو شاء الله بن خون يالا ما قتلوا دون قيخو ولكن الله وانت يالا يفعل دا فاي ما يريد لوم بغ موتاخ نين ني مو جوبال لين نين ني مو فخه باغ ويدي ماندو سي نيوم با ني مو جي دي اي ييفر بغ بغ يي اوتي نك نياك مو ني لانتي ام خيخو لولو كوي اندي يا ايها الذين امنوا يين ني واخني گم گين يالا anfiqu fere leen mimma razaqnaakum ci liñ leen wërsëgal bu fekkonte ne ñaari miim yi dañoo dindi genn gi konoon day jëfandikoo diine dana jafe de bu ne woon rek anfiqu ma razaqnaakum luñ leen wërsëgal rek na ngeen ko joxe konoon yëfi dana métti de waaye nag ñaari miim yi li muy mooy joxe leen ci min ma razaqnaakum loolu mooy cosaanal wax ji joxe leen ci liñ leen wërsëgal min qabli an yaatiya lu jiitu mu ñëw yow mun bés boo xam ne laa bayun déet njaay fii ca bés ba wala xullatun déetu xaritoo wala shafaatun déetu ramm wal na yéefari humu zalimuna ñooy tooñkat yi nee na lu ngeen am lu ngeen man joxe leen léegi ndax lépp lu ngeen jiitalut su ngeen demee du ngeen ko fa fekk te nag bés a ngi ñëw boo xam ne jënd ak jaay amu fa kenn du fa yobbu sax xaaliss bo meuna a dara ak xarito amu fa ndax kenn ku nek sa bop ngay tal ña baaxle la len di teree nelaw moy bëggoon gëna gën ña bonle la len di teree nelaw moy bëgga a motax fofu kenn du fa am yiw wo xam ne defewu ko dara kenn ku nek lo am ci lu bax lu mu rek dang ko xép ndax ka am aw yu sax ba mucc ci safara ba dugg aljanna yeneen façon kër yam fa gis te moom amut kër yu mel noona ndax dara jaam àggu fa loolaay tax lu lu mën a foraatu ci wiiw daf koy foraatu moo tax baxal fa kenn dara lu jafe lay doon mu ne balaa bés boobu nag joxe leen li ngeen am moo gën jëkki ba bàyyee koo fi bàyyi doon na nettali benn waajoo xam ne nee na ci Mauritanie la amee woon góor gi dafa am alal ju bëri dem ba màggat nag benn bés mu tëdd rek waa kër gi nekk ci xumbaay beeg waxtaan wi rek reer fàtte góor gi ba mu yàgg mu laajte ne ah déet xanaa tey moom du ñu reer ñu ne eh ñun kat def nañ ay reer nañ fàtte bàyyi de mu ne ah waaw baax na mu ne mu xëy rek woo miskin yi rek dem ca gétt ku xool rek na la giléem gi lum la jaral nga ne ah gii de jar na nanga mu ne jëlal yàlla jox la ñu naan waa góor gi xanaa dafa dof mu ne dofu ma de maa bëgg balaañ maa fàtte ma fàttaliku sama bopp man ma ñu di ma fàtte xaat ba fàtte ma reer léegi lii naa ko saraxe su ko defee bu ma demee fekk ko fa kon loolu lay wax ne na ngeen joxe. balaa bés boobu di ñëw wal kaafiruuna humu zaalimuuna ibnu kathir wax na ne ibnu abi xaatim dafa jëlee ci ata ibnu dinaar mu ne ah waaye yàlla de alhamdulilah ba ba mu waxutee wal ka ba mu waxee ne wal kaafiruuna humu zaalimuuna te waxut ne wa zaalimuuna humul kaafiruuna xam nga wal kaafiruuna humu zaalimuuna mooy yéefar yi ñooy tooñkat yi waaye bu fekkoon nag daf ne wa zaalimuuna humul kaafiruuna tooñkat yi ñooy yéefar kon yéefar dana bëri de ndax ñii tooñ dañoo bari kon yéefar moom tooñkat la waaye tooñkat nag mën naa bañ a doon yéefar loolu rek mooy wax ji yëpp bàyyi na loolu laaya ji ñu bëgg a jàng moom la ñuy wax ayatul kursi te ayatul kursi yi yonent wax na ci lu bëree bëree bari bokk na ca lam ca wax nee na aadama mooy sangab bindeef yi man maay sangu arab ayatul kursi mooy sangab laay salmaan mooy sangab faris bilaal mooy sangab xabasha mooy éthiopie aljuma mooy sangi bési wax na it moom yonent sallallahu alayhi wa sallam ne alquran yëpp li ci gën mooy suratul baqara suratul baqara aaya ba ca gën mooy ayatul kursi loolu nag ngëneel yooyu lu tax moy ne ni nga xamante ne suratul ixlaas jëmm yàlla ji kese kese la jàngale wéetal yàlla kese la jàngale ayatul kursi moom it noonu la de waaye nag leneen a ci làqu nag moom ayatul kursi ndax boo waññee da nga gis ne fukki turi yàlla ak juróom-ñaar ñëw na ci yii ay ismu la yii ay damir la boo ko compté da nga gis ne mat na fukk ak juróom-ñaar mu ne allahu yàlla laa ilaa amut benn buur ilaa huwa bu ko moy xam nga allahu yàlla la huwa itam damir ji ci yàlla la dellu alxayu yàlla rek mooy aji dund ji alqayyumu moom rek kay aji taxaw ji lu tax alxayu moom rek kay dund ndax keneen kuy dund wala leneen luy dund am na jamono nekkoo woon di dund am na jamono dootoo dund kon yàlla rek a dund alqayyumu itam mooy aji taxaw ji lépp lu taxaw dafa taxawee dara taxaw ci kaw dara lépp lu taxaw nag ak lu mu mën a doon am na lum taxawee am na ci lum taxaw am na lum taxawee mooy am na lu ko téye ba mu mën a taxaw nit ka la muy am am doole boo ko séenee mu taxaw ah, lekk lam lekk ak lam naan ca la amee kattan ba mën a taxaw de bu fekkoon lekkut naanut léegi tey mu daanu kon nit bu taxawee dafa am lum taxawee dafa amit ci lum taxaw nag benn mu taxaw ci suuf si wala mu taxaw ci lu tegu ci suuf waaye nit mënta taxaw ci lu dara yàlla nag moom taxawut ci kaw lenn taxawee hutit lenn kon mooy alqayyuumu loolu it xam nga turu yàlla la kon xam xam nga amagum nga allaahu muy benn huwa muy ñaar alxayu muy ñett alqayyuumu muy ñeent laa taaxuduhu damir jooju itam day dellu ci yàlla loolu beneen beneen tura ngi noonu kon muy juróom sinatun gëmmentu wala nawmun waxu malaak nelaw xanaa dañ daan wax nelawut gëmmentuwut nelaw moo gën a diis moom la ñu jàppoon ne moom la ñuy njëkkee waaye comme bala nelaw di am gëmmentu mooy am loolu tax mu njëkk a tudd gëmmentu yi de na yàlla gëmmentuwut waxu laak nag di nelaw moo tax nettali nañ ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam bés dafa toog ba mu yàgg rek xelam daj ne waaw est ce que yàlla moom danay nelaw muy xalaat lu mel noonu waxu ko kenn nag waaye da koo xelam da koo daj noonu rek mu ne léegi nag am malaaka ñëwal ko fexe ba mu ñàkk nelaw lu mat ñetti fan léegi nag mu ne gannaaw saga la ko jox ñaari kaas ne ko kaas yi nag dénkaane la na nga ko garde na nga fexe ba dara bum ci mbéjji ba ko gëmmentu yi jàppee moom yonent yàlla Muusa dafa jaayaxoo jaayaxoo jaayaxoo ba fenqlante kaas yi ñu toj mu nelaw ba sànni kaas yi dafa yeewu rek fekk xott yaa nga tasaaroo yàlla ne ko ah Moussa dénkuma la lu mooy ñaari kaas nga nelaw mu mu mënoo koo garde man mii garde asamaan ak suuf bu ma nelawoon fu loo yaakaar ne mooy xew mu ne mu xam ne yàlla tontu na ko ca lam doon wax ndax yàlla danay nelaw wala déet mu ne dafa am ñaar ñoo xam ne ay taalibe lañu woon dañ doon werante benn taalibe bi ne moroom ki nelaw moo gën yeewu kii na ko yeewu moo gën nelaw mu ne ko ah kay nelaw moo gën parce que boo nelawee yow dootoo jëw dootoo sàcc dootoo fen mboolem luy xeetu mooy yàlla rek boo nelawee mucc nga ci kon nelaw moo gën moo gën a wóor kee ne ko yeewoo gën parce que boo yeewoo ci ngay xam yàlla ci ngay mën a jaamu yàlla lépp lu ñuy wax ci màgg yàlla gi feeg yaa ngi nelaw yëgatoo ko ñu werante ci ba mujj gi mu ne ko nañ dem laaj ko sëriñ ba ñu dem ci seen sëriñ laaj ko ki ki waxoon ne yeewu moo gën nelaw mu ne ko yow de sa dund bee gën dee yow rek yemale wax ja foofa kon ka ca xam na lañ ko wax di gannaaw ki wax na yeewoo gën nelaw sëriñ bi daf na ko sa dund moo gën sa dee kon ki wax na nelaw a gën kon xanaa dee gee gën dund loolu it nag noonu la amee ci nit ñi am na koo xam ne dundam moo gën dee am parce que fii mu ngi dund aw yiwam di yokk ci jaamu yàlla ci njub lay nekk waaye nag kero bu dee yiw woowu day arrêté kooku moom lu mu gudd gudd fan rek gudd fanam moo gën ci moom am na koo xam ne nag dee moo gën dundam de ndax moom bu nekkee ci àdduna mooy yàlla rek lay nekkee te moy yalla gogou num gëna bëré mu gën ko lor kon num gëna gawa dé ak moyam yalla gëna a di kon koku deexam a gën dundam moy ko xamné nelawam mo gën ak dafa am ben dafa jënd ab jam ci jamono yi njëkk ya jam bi yendoo liggéey ba ngoon mu woko ne ko demal nga laal ma lal bi damaa bëgg yi jam bi ne ko patron man dé am na la bëggona a laaj ndax yow am nga am nga patron yow am nga borom mu ne ko ah waaw am naa borom kay mu ne ko ndax sa borom moom danay nelaw mu ne ko ah déedéet duy nelaw de mu ne ko ah man de man de man yow yow yaay sama sang waaye rus nelaw te fekk nelaw goo de mu ne keroog la ko goreel ko yow doo jaam yow moom nit mënta nekk ak yow xam naa ne fa nga jëm ak man xam naa ko maanaam comme daal sa borom nelawagut yow nga nelaw ci ko fi mu ne loolu daal normalement kenn ku ne war na koo kon yàlla moo tax mu ne yàlla du nelaw du gëmmentu lahu ñeel na ko beneen damira gi noonu de dellu na ci yàlla maa fi samawaati li nekk ci asamaan yi wa maa fi l ardi ak ci li ne ci suuf man za lazi ana kan mooy ka nga xam ne yashfau dana ramm indahu fa moom beneen damira ngi noonu de dellu na ci yàlla illaa bi iznihi lu dul ci ndigalam beneen damira ngi noonu dellu na ci yàlla yaalamu nëbb na beneen damir mooy faailam maa bayna aydihim la nekk fa seen kanam wa maa xalfahum ak la nekk fa seen gannaaw wala yuxiituuna duñ peeg bi shay'in dara ak lu mu tuuti tuuti min ilmihi ci xam bi beneen damir a ngi noon de illaa bi maa shaa loo xam ne neex na ko kooku it nëbb na beneen damir de wasi'a ëpp na kursiyuhu beneen damir a ngi noonu de gàngu naayam nga asamaawaati asamaani wal ard ak suuf wala yaudu te du ko diisal beneen damir ñëw na foofu xifzuhuma garde leen masdar moomu it nag dafa war a de dañ koo nëbbu wa huwa damir jooji dafa dellu ci yàlla al aliyu turu yàlla la mooy aji kawe ji al azimu turu yàlla la te mooy aji màgg ji boo compté loolu danga am fukki tur ak juróom-ñaar yoo xam ne juróom yi ay ismu zahir la fukk ak ñaar yi ay damir lañ kon looloo tax ayatul kursi mooy sangab aay yi moo gën ci aay alquraan yi moo ci gën a màgg li nga ciy jàngee mooy kon ku la ëpp tur yàlla rek moo la gën sooy seet daal yaag waa ji ku ci gën seetal ku ci ëpp lu muy tudd yàlla rek ku la gën a bari lu muy tudd yàlla rek kooka moo la gën ayatul kursi nag ay njëriñ yu bëree bari am na ci borom xam-xam yi wax nañ ci lu bëri loo xam ne ci lii ci bëri ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ ko jëlee am na ñoo xam ne sax dañ koo beral téere spécial boo xam ne rek di wax ci ayatul kursi ak i ngëneelam bokk na ci ngëneel yi nga xamante ne yonent sallallahu alayhi wa moo ko wax mooy na képp koo xam ne boo jullee ba sëlmal jullik farata bala nga faa jógee jàng ayatul kursi mu ne dara doxut sa digganteeg aljanna lu dul dee dee rek moo la teree dugg aljanna bokk na ci ay ngëneelam ay njariñam dafay tax seytaane di la moytu yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ne booy tëdd ci salal da ngay jàng ayatul kursi yàlla dana la musal ci saytaane yow ak ña ña sëslantoog yow néeg yëpp yàlla dana leen musal ci saytaane ci guddi googa abu hurayrata radiallahu anhu yonente salallahu alayhi wa sallam da koo dénkoon alal tàndarma joo xam ne ne ko gardeel ma ko moo ko daan garde mu toog bés rek benn waay ñëw ci di sàcc mu ne ko kii kan la mu ne ko baal ma mu ne ko baal ma lan mu ne ko dimbale ma rek dootuma fi delsi da nga may suturaal rek mu ne ko ah baax na ba mu xëyee rek nuyu yonente bi salallahu alayhi wa sallam balaa moo wax dara rek yonente bi salallahu alayhi wa sallam ne ko abu hurayrata ah sa sa sàcc bi moom foo mu ak moom mu ne ko ah moom de dafa ne dootul delsi moo tax ma baal ko mu ne ko wax dëgg de dana delsi de ca suba ga Abu Hurayra te toog ba mu yàgg rek mu seen waajaa ngay ñur waat di yoot di ñëw ba mu ñëwee mu ne ko waa kii kan la mu ne kañab mu ne ko déet yow waxoo woon ne doo fi ñëwati mu ne ko waa baal ma dootuma fi delsi mu ne ko waa yow démb du loolu nga ma waxoon ne ko du ma fi delsi mu ne ko waa baax na kon demal mu bàyyi ko mu dem ba mu xëy si waatee balaa dara rek yonent salallaahu alayhi wa sallam ne ko Abu Hurayrata an sa waaja mu ne ko ah ñëwaatoon na biig de waaye nee na dootu del si mu ne ko waxul dëgg de dana ñëwaat de ah, ca ñetteelu fan ba ba toogee rek seen waajaa ngay yoot xam naa yoon bu ne nag xëy na dana ñëwee weneen fee mu bokk te ba mu ñëwee woon démb bi mu ñëwee Abu Hurayrata ne ko nacc mu ko baal ma dootuma del si mu ne ko yow kay mënatumaa gëm say wax yow yoon boo waxee li ngay wax da nga da nga da nga da nga yow dama lay jàpp yóbbu la ba ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko taxawal ma waxal la boo bëggee ma wax la loo xam ne lii soo ko jëfandikoo mucc nga ci saytaane te bul ma yóbbu ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko loola lan la mu ne ko ayatul kursi yi soo ko jàngee rek mucc nga ci saytaane mu daal di ko bàyyi ba mu rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waaw ana sa waaja nag mu ne ko ah waaw moom day nee na dootul dellusi daal di ko wax lim ko wax mu ne ko day fenn nak way wax na dëgg foofu moom maanaam li wax ne ayatul kursi kuko jang jàng da lay musal ci seytaane lolu mom deug la donte yon ye mo waxon dotuma delsi bu ci nek delsi watna kon ayatul kursi da fay musal nit ci seytaane kare yu njëkk ya buñ demaan ba xare jaaxal leen balaa ñoo dem dañuy dajalo ben place jang ko ñetti téeméeri yon ak fuk ak ñet suñ ko defaan rek buñ démé am ndam kon bokk na ci yi ñuy fajee ay soxla wax nañ ne soxla lu mu tar-tar rek lu mu metti métti lu mu jafe-jafe fexeel rek ba jàng ci ñetti téeméeri salaatul fatiha ak fukk ñett su boobaa rek yàlla mën naa def soxla sa faju ci barkeb alquran kon aaya bu bu foor la ci alquran laa ikra déet forcé fi diini ci diine diine amul forcé de ci dugg ga waaye nag boo duggee ba ci biir kër gu ne am nay sart loolu ñu bëri dañ ci dañ ci dañ ciy daanu de boo waxee rek ñu ne laa ikraa fi diini diine amut forcé dëgg la diine amut forcé mooy ba nga nekkee fee doo ab jullit kenn du la fa fekk ne la par force tey nga nekk julit déedéet waaye nag boo xasee ñëw ba ne bokk naa ah léegi nag du wut nag bu la neexee ba kon laa ikraa fi diini mooy ca dugg ga xat tabayyana bir na al rushdu njub min al ghayyi ci bew lu leer ak lu lëndëm leer na naññi ku ko bëgg xam man nga koo xam fa man yakfur ku weddina mu bi taaxuuti ci seytaane wa yumin billaay mu gëm yàlla faqad istamsaka nga daaru na bil urwatil wusqaa ca buum gu dëgër ga buum ga nga xam ne lan fi saama déet ak rewen ci ko laa di ko ñeyal wallaahu yàlla samiyoon aji dégg la mu alimun aji xam la nee na képp koo xam ne weddi nga seytaane gëm yàlla moo tax damay wax toujours ne weddi daal baaxut alquran ba alquran daj fa man yakfur bi taaxuuti mu amal borom njëriñ ku weddi saytaane te gis nañ ne amal na borom njëriñ gis nañ itam ñoo xam ne dañu ne dañoo weddi taaxuut mooy seytaane mu amal leen njëriñ ngëm itam li lay xamal ne baax na ngëm yi gis ci alquran yëpp dañ leen a tagg ba mu des afa bil baatili yuminuuna walla boog yuminuuna bil jibti wa taaxuut foofu lañ gis daal ngëm goo xam ne jural na boroom problème fii lañ gisee weddi goo xam ne jural na boroom njariñ fu ko mooy rek fu ñu waxee weddi rek teg nañ yar ba nga xam ne moom lañu war a dóor boroom fu ñu waxee ngëm rek teg nañu yiw wa nga xam ne añ ba nga xam ne moom lañu war a war a añalee boroom kon loolu li nga jàngee rek mooy weddi baaxut weddi it wóorut ndax weddi boo ne lii amut rek li muy tekki mooy lépp lu ci aju ci xam-xam bu ndaw ak bu mag yëpp wër naa ko ba dajal ko ba xam ne lii amut loolu lay tekki di moo tax uh, suñ maam Maodo Malick si waxoon ne man lam yuxit bi jumlati sharia inkaaruhu li mahlakin zaria képp koo xam ne dajaloo man lam yuxit waxut sax day xam dajal wax dajal la wax képp ko xam dajalo mbollem li sharia lepp lepp nga jang ko bam daj nee so soo rek sa weddi goga man na la jural halkare wa kañ la di dajal sharia damay wax xale ne len jamono ji ñuy wax amna ko koo mu ngi talif ab téere bo xam ci sharia la koy gut xam kon boobu jàngagoo ko kon kañ ngay dajal sharia nit ñaa ngi bindu ba guñ kon nak lolu moy bul weddi rek kon neena na képp ku weddi euh, saytaane gëm yàlla kooka moo jàpp ca buum gu dëgër nga xam ne du rewenci ko allahu yàlla waliyu alladina amanu mooy kilifaay ñi gëm yàlla yuxrijuhum da leen di génne mina zulumaati ci lëndam ila nuur yóbbu leen ci leer ak ngëm walladina kafaru waaye ñi weddi yàlla nag ñoom awliyaauhum seeni kilifa ataaxutu mooy seytaane seytaane nag ñoom yuxrijuunahum dañ leen di génne mina nuuri ci leer ak ngëm yàlla ila zulumaati jëm leen ci lënd jëme leen ci lëndami kéefar waaye kay ñooñu ànd ak seytaane asxaabu naari ñooy ñooñ safara hum ñoom xaaliduuna way sax lañ fiyaa ci safara sa waliyaadu billah alam tara xanaa gisuloo ila alladina ci ila alladi jëm ci ki nga xam ne xaaja ibrahima da doon weranteeg ibrahima fii rabbi ci boroomam nee na loolu ma ngay tudd ke ñuy wax namrose benn buur la woon boo xam ne moo daje woon ak yonent yàlla ibrahim bi yonent yàlla ibrahima di oote ñu koy umb umbal ñemewuñ wax ji jëm kaw ba far buur bi jot ci nag woo ko bés nag mu ñëw mu koy laaj mu ne ko man dama gëm yàlla mi nga xam ne mooy benn boroom bi nga xamante ne lépp lu am moo ko amal id qaala ibrahimu ba ibrahima ne ko rabbi sama borom alladi mooy ki nga xam ne yuxyi mooy dundal wa yumiitu te mooy rey kooku mooy sama boroom ki nga xam ne mooy dundal di rey alu ah, tax mu njëkkee dundal door a wax rey te dañoo wax ne dee moo njëkk dund kom dee moo njëkk a dund kay kon dundal da koy dundal door koo reyaat kon nee na yàlla moomu mooy dundal mooy rey qaala waaja ne ko namroos ne ko ana uxyi wa umitu man tam damay dundal di rey di mu ne ko ci naka mu oo dem yónnee ci prison ba rek ñaari nit daal di wax borom jaas ji rek ne ko rayal ma kay waa ji rey ko mu ne keneen ki demal mu dem mu ne ko gis nga rey naa kii dundal naa ki mu ne ko kii nga rey ba pare ndax mën nga koo dundal mu xam ne foofu bu fa duggee du baax booba la bàyyi wax jooju Ibrahima ne ko léegi daal ci gàttal wax wax ji fa inna allah naka yàlla yaat yi danay ñëwee bi shams ci jant bi minal mashriqi muy jógee penku bés bu set ba ma juddoogut booba juddoogoo maag yow suñuy maam juddooguñ ba léegi jant bi penku lay jógee di jëm xarfu léegi faati bi a dikkee ko minal maghribi mu jógee sawu léegi yow benn bés rek waxuma toujours waaye seetal benn bés boo xam ne rek pour wane ne am nga doole am nga kàttan loo wax mu am na jant bi fenkee xarfu jëm penku fa buyita daal di wedam alladi waa ji nga xam ne kafara weddina wallahu yàlla laa yahdi du gindi alqawma ni ñaa zaalimiina ñu deway tooñ de waaju mbëru la woon dégg ngeen yàgg ngeen a dégg ay ay nettaleem ci ak ak ndofam daan dof ni mu dofee woon ba wax ne day xeex ak yàlla ñu ne dem ba naan léegi yow wi dugg ci bag noppam bi dafa bëgg ñu changé ko boppam bi yëfi dof dëgg daal la daan def loolu pour fàttali la ak delloo la ci tawxiid aw kalladi wala boog ni ka nga xam ne marra romb woon na ala qaryatin cib dëkk te mooy baytul maqdis war mbaamam wayete dëkk ba xaawiyatun aji daanu la ala urushiha ci ay qaddam qaala mu ne annaa yuxyi ana fan lay dundalatee dekkalatee haadihi dëkk bi allaahu yàlla baada mawtiha gannaaw ak deeyam ba mu ko waxee rek fa amaatahu allaahu yàlla rey ko mi ata aamin téeméeri at summa baasahu gannaaw si gi nag mu dekkal ko kooku qissa uzayru la uzayru benn waay la woon boo xam ne mu nga dëkkoon baytul maqdis ci yahudiya ñu toog ba mu yàgg nag am benn buur boo xam ne dafa ñëw songu baytul maqdis gannaaw boo xamante ne yu nguur ak solo yonent yàlla Suleymaan jeex na waaw ah, imaam marhaban bil imaam jërëjëf ndaw ah, gannaaw boo xamante ne nguur ak yonent yàlla Daawud ak nguur ak yonent yàlla Suleymaan jeex na dem nañ ba nga xam ne ña sëslante woon ak ñoom ñeme nañ leen buur ba nekkoon Baabila ca Iraq yebal ku ñuy wax ah, Buxta Nasara wala na boo xis Nasr Buxta Nasara ñëw daal di waxtaan ak wa dëkk ba not len daal di leen bi mu demee gars yi demaat ñu bewat mu songat len japp len ay jam kep ku doon bañ mu ray la kep ku nangum mu yobula jam ci lañ jàppaale won nag ku ñuy wax Uzayru mu ngi am fukki at ak ñet ñu jël len ñom ñep yobulen Iraq def len fa ay jam ñu tok dir bu yag yag nak gannaaw si gi ba fa nek gis kenn ci yahud yooyu nga xam ne ñoom lañ jàppe ca baytul maqdis mu gis ci kenn mu bëgg ko takk ko mu nekk soxnaam ñu dem ba mu yàgg lool nag wàññi bañ mbañante gi nekkoon ci diggante ñaari xeet yi comme léegi goroxante nañ loolaa woyofal mbir mi daal ba bés Uzayru ne moom daal dafa bëgg delluwaat fa mu bàyyi ko woon mooy baytul maqdis seeti ko ba xam nu mu mel waa këram ne ko bu ko sa xel daj mukk foofa gent na benn ñaareel ba mooy su bour bi yegene ne ngi fay dem man na la jural problème mune len man munuma ñaka dem mu dal di jël ben jaaru jox ko jabaram tag doom ji nak dal di war am dem bam ñewé fekk dekk ba dal leg leg mu gis kaangam bopp mu xamné ne nit la leg leg mu gis ay yax ay yel garab ya ngay meññi ken laalu ko mu dag ci figgi bi jël ci raisin ji dal di nal di naan mom kese ci Allah bi dara yëngatuwut ba ag ci ben kunti nak di noppalu wekk mbuus yi tëdd rek xalaat naan lii daal kañ lay dekkiwaat lii naka la ko yàllay dekkalee te yàlla nee na lu dee mën na koo dekkal booba moom am na ñeen fukki at yàlla rey ko foofa mu dee fa ba am fa téeméeri at gannaaw boo xamante ne tëdd na fa diir bu yàgg nag beneen buur falu ca Iraq ne yéen bu yahud yi ku ci bëgg ñibbi libéré naa la mën ngaa delluwaat sa réew yawut yëpp buubu nag jëm si waat baytul maqdis bi ñëwee ñi xàmmi seen kër bàyyi ñi xàmmi seen kër yi am na ci ñooñ màggat nañ waaye xam nañ ne fii la seen kër yi newoon ñenn ñi mag lañ waaye bañ leen fay jëlee xale lañ waaye xamoon nañ ne diggante bii seen kër newoon ñu sancaat seeni kër jabaram jooja nag ak doomam ja ak mbindaanam ma ñoom itam wër ba xam jabar ji xam ne fii moo doon seen kër ñu sanc fa moom ma nga dee rek ñu dem a dem ba ñu teg ca diir bu yàgg-yàgg Lumat mat ñeen fukki at yenen manam eh, legi kon mom gannaaw bu mu dee ba am téméré at manam wa dëkk ba ñom dëkkat na ñeen fukki at gannaawam wa dëkk ba di toxu bi mat na juroom ben fukki at kon bu ci tégué yenen ñeen fukk day mat témér yalla dékkal ko bam déké dekkee xol xammi dëkk bi gis kër yi mu né wa fi de baytul maqdis la mu def direct kërëm bi ñëwee rek daal di fëgg doom ji booba nekk na mu kàllaf doom ji ne ko kookaan la mun ne ko man la ubbi ne ko yow lan la mu ne ko yow looy wut kër mu ne ko déet yow laay laaj looy wut sama kër fii sama kër la mu ne ko fii sama kër la commencé werante coow li ne kur yaayam dégg coow li ne lan la mu ne ko ponkalam góor guddi gi mu ñëw di fëgg naan fii këram la kii xaw ma dafa dafa xaw ma mu ne ko kii kaan la mu ne ko mën a Uzayru mu ne ko yow Uzayru ba mu dee loolu xanaa booba kenn dafa xam kañ la ñun ba ñuy nekk baa bi la ca Iraq la fa bàyyeekoo ne day tukki si aaye nañ ko mu mu départ booba xam naa ci la dee ba léegi xamuñ ci moom benn xibaar mu ne ko man mii maay Uzayru mu ne ko te liy tegtal ci loolu mooy ba ma leen di tàggu keroog di leen wax nangam ak nangam ak nangam joxoon naa la ab jaaru ndaw si ne ko wax nga dëgg di jaaro bi dee ngi nii mu ne ko waaye Uzayru nag moom dañoo wax ne mokkaloon na tawraat ndax yow mën nga ñoo taril tawraat mu ne fu leen neex wax leen ma leen ko. booba la nag la nit ñi ñëpp ne kër kër ne këpp ñu ne lii kay mën naa am ñu ne lii la lii mënta am loolu yàlla nettali na ko ngir wane kéemtaan gi moom la wax ne yàlla rey na ko téeméeri at moo tax mag ñi léeg-léeg ñi di la cax naan la doom ju am juróom-ñett fukki at baayam am téeméeri at loolu mooy mooy lan maanaam doom ju maanaam baay ju am ñeent fukki doom ja am juróom-ñett loola mooy lan maanaam ñu ngi ci jublu rek ne Uzayru bi mu dee booba dundatut te ba muy dee ñeen fukki at la am kon buy dekk it ñeen fukki at rek lay am di te doom ji nag moom booba léegi mu ngi dund kon nee na yàlla dekkal na ko su ma baaxatoo topp mu dekkal ko xaala mu ne ko kam la bis te ñaata nga sax ah te moom ba muy tëdd di noppalu yoor yoor la woon te bi mu yeewu tàkkusaan la moo tax mu ne ko ñaata nga fi sax xaala mu ne la bis te yow man sax naa fi bés aw baax da min wala lu matut bés sax xaala yàlla ne ko balle am kay la bés ta sax nga mi ata amin téeméeri at ba nga fi ren ren ji la ci téeméeri at mu yéeme lool mu ne ko fandur xoolal ilaa taamika ci sa ñam wi te mooy figg te mooy tiin bi nga xam ne daggoon nga ko def ko ci sa mbuus gi wa sharabika ak sa naan gi te mooy raisin ji nga xam ne da nga koo naloon ba mu nekk ndox nga def ko ci sa mbuus gi di naan lam yata sanna nabut ba léegi foroxut te am na fi téeméeri at loolu yëpp li muy tegtale rek mooy yàlla mooy borom kàttan lu màgg li lii tax aw ñam di nëpp ay ndundat la yu ne ci biir ndundat yooyu yàlla leen di bind moo leen di màggal bu fekkee màggalu leen rek fañ nekk fa la ñuy nekk duñ màgg duñ jurante su boobaa ñam wi mën na fee nekk yàgg fi lool te du yàqu di waaye it xam xamle na ne temps moo ko yore temps yàllaa ko yor di ko xëcc muy dem te lottut moom yàlla ci seet kenn ci mbindee yi mu génnee ko ci temps bi wa ci temps bi muy continuer loolu la defoon Uzayr di moo tax nettali woon nañ leen ko fii benn bés waa joo xam ne da doon waaraate di di seen dëkk taxaw ci buntu jàkk ji naan yàlla mën na lu ne ba leen yàlla mën na gileem ak ab sëfam yalla jaarale ko ci bën bënu pusa te pusa ba du xëtt gileem nga du dee ben doomi baaje na ma nga fa ne ko saway deug deug jang nga ne ko waxtaan wi neex na way lolou mo meunta nek muné ne ko yàlla mën na ko mu ne ko waaye seet loolu nga wax xana gileem nga wax de xana yow sa ben baram bi rek meunta dugg ci bën bënu pusa lolou mané muné ko waye dama ne yalla man nako muné ko lolou ñun jangu xam nañ lolou meunta nek mom mi doon weddi nak ne xaaral ma ndox te ñew ñi julli timis ba mu demee fa mu toog di tuur ndox rek yàlla rey ko dekkal ko ci meneen réew mu judd foofa ba yaru fa ba màgg fa am fa jabar ba am fay doom di bay ba màggat ba dee yàlla dekkalaat ko ci meneen réew mu judduwaat foofu nekk fa ba màgg di commerce am fay jabar ak i doom ba dee yàlla dekkal ko delloo ko fi mu toog di saw rek mu yuuxu jëmale waa ji ne ko li nga wax yàlla mën na lu ko ëpp ba ma fi jógeeg léegi maa ngi juddu woon ci dëkk bu ñuy wax dëkk sàngam sama jabar jee diw la tuddoon amoon naa doom ji tudd nangam ñu waa xanaa kii dafa dof mun a jóge ko war naa fa sax dem naa fa ci beneen dëkk doon fa dund def naa fa commerce def naa fa nangam ak nangam ñëpp yaakaar ne dafa dof waaye xam nga yàlla lottut ci mu génnee waaje ca temps ba mu newoon dugal ko ci beneen temps bu bokkut ak temps yi nit ñi su ko defee temps am gën a gaaw temps yi nit ñi wala yàlla mën na bloqué temps yi waa jàkka ji mu taxaw benn place mu wacc temps waa ji muy dem parce que yàlla mën na lu nekk te temps bii mbindeef la comme yow yaa ci mënul dara waaye yàlla moom mën na ci dara bu ko neexee mu freiné ko bu ko neexee mu accéléré ko la taxoon kat na Ali ibn Abi Talibin eh, nekkoon ak yonent sallallahu alayhi wa sallam ci service su ba jant bi so ñu ne yonent ne bi pare na ko eh, ne yàlla Aliyu mii kat ci sama service la nekkoon ba ju waxtu tàkkusaan wi nar koo raw dama lay ñaan nga delloo si waatal ma jant bi ba mu mën a julli tàkkusaan ci heure ndax ci service la nekkoon yàlla may ko loola wax nañ ne Yusha ibnu Nun tam ba mu sëslantee ak noon yi ba war a xeex ngoon ak àjjuma te mu wóor ne bu jant bi soxee bët set di ñoom duñ ci def dara samedi bi su feet la su ko defee noonam yi danañ mën a préparer wu ci samedi ji te bu boobaa dootu leen jekku yàlla arrêté jant bi benn place tàkkusaani àjjuma jooja lam bëggoon a def yépp mu def ko ci loo xam ne xajut ci benn bés kon yàlla mën na bloqué temps kon yàlla mën na lu nekk fala maata fala waaw mu ne ko wandur xoolal ilaa ximaarika sa mbaam mi yàlla daa dekkal Uzayru ba pare door ne ko nag xoolal ni may dekkalee mbaam mi wali naj alaka dañ laa bëgg a def aayatan ngay kéemtaan li naa si ñeel nit ñi ndax kat nit ko xamne ne la yaa jur waaji koko kooko na ba nek appa di kubur kubur yow nga tollu ci ñeen fukki at loolu rek kéemaan ak bopam la di wanzur ila al izami ci yaxi mbaam mi di dajale mbammi mi par yah di dajale mbammi mi par yah bam taxaw kay fa nun sisuha naka lañ koy dundale fu ma nag suwaa topp ñu wodd ko lahman ak yap yah yi ño taxaw karakas bi nonu yap yi doora ñew di ci tege muy xol di xol ba gis ni mbammi dekke dekkee fa ba biree lawu ñeel ko qaala mu ne aalamu xam naa nag tey xam ak wóo gu wóor ne anna allah naka yàlla ala kulli shay'in qadirun mën na lépp nag bàyyi na loolu tey ci kéemtaan yi wa fàttalikul id qaala ba waxee ibrahimu ne rabbi borom sama arini wan ma kayfa tuxiil mawta naka ngay dekkareelu dee yonent yàlla ibrahima moom itam dafa laajoon yàlla ne ko damaa bëgg nga wan ma nooy dekkareelu dee qaala yàlla ne ko awalam tu'min xanaa dangaa gëmut xanaa gëmatoo nag léegi قال ابراهيم نكو بالا اهنام گمنا دي ولكن وايل يطمئن قلبي دما بگ سما خول بي دال دما بگ لو خامني داي گنا تخ ما گنا گم موتاخ يونت صلى الله عليه وسلم نينون نون داي ньо گنونو ييو ساخ ني سيك ساك تي ابراهيم وايل لم واخني داكو واخون رك ngir ngir toroxlu قال يالا نكو فخذ جلال اربعه من الطير ينت بيتش fasurhunna nga mujjal leen ilayka ci yow jëlal ñeenti picc yi nga rey leen daggate leen furhunna daggate leen jaxase leen su maj al nga def ala kulli jabalin ci bépp doj min hun na ci xaaj yooyee juz an ab xaaj su ma duuhun na nga woo leen yaati naka dinañ la ñëwal saayan di dox waalam na nga xam ne am na laa naka yàlla azizun aji not ci nguuram la xakimun aji xereñ la da jël ganaar ak tan ak baaxañ ak jàmbu jóob noonu la ko yenn mu fassiroona yi waxee donte am na ñenn ci ñoom ñoo xam ne dañ koy weddi di wax ne picc yooyu kenn xamu ko loolu nag meneen mbir la moom nee na boo ba bañ nekk ay morso nga jaxase leen jaxase leen ba seen yara yàpp yi jaxasoog seen dung yi nga xaaj leen nag ñeenti juug ñeenti doj yi la wër doj wu nekk nga def fa benn juug picc mu nekk nag nga jël bopp ba bopp ba moom doo ko boole ci li ngay jaxase soo yëkkatee bopp picc mooma soo ko ooyee la bokk ca picc mooma ca doj wane ca penku déparé fële di ñëw lële déparé fële di ñëw yépp dajaloo ci bopp bi mu nekkaat lam nekkoon kéemtaan googu la ko yàlla doon wan bàyyi na loolu masalul lazina yunfiquuna li ko tax a wàcc mooy xare ba yonent sallallahu alayhi wa sallam doon dem Tabuuk nga xam ne jamonoy xat-xat dëgg la woon te fañ jëm sori na lool noon yi ñuy xeexat bëri nañ lool te am ngànnaay te jamonoy tàngoor la itam dara amut ci alal moo tax ñu bëri doon lay ngir ña fexe nu ñuy fexe ba duñ dem waaye terewul ñi nga xam ne way gëm lañ ñoom lañ am yëpp def nañ ko ca Seydina Ousmane alal ju bëree bëri la cay joxe woon yàlla ne masalul ladina misaalam ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy feere am waalawum seen alal fi sabilillahi ci yoonu yàlla ka masali xabbatin dafa mel ni wenn pepp woo xam ne an batat sax na saba sanabila juróom-ñaari gub loolu baykat yi dugub yi dëgg ñoo ko xam benn gattax boo xam ne day dem ba mu yàgg mu toj di focc ay gub mu ne benn gattax bu focc lu mat juróom-ñaari gub fi kulli sumbulatin gub bu nekk nekk na ca mi oto xabbatin téeméeri pepp loolu kon xam nga juróom-ñaari téeméer benn pepp bu jural na la juróom-ñaari téeméer loolu waa mooy kiy joxe alalam ci yoonu yàlla noonu la ko yàlla di fulandee moo tax benn wàlliyu dafa xëy amut dépense benn ñetti dërëm la am benn yalwaankat romb rek mu ne ko am yàlla jox la léegi nag yoreetul benn dërëm mu toog tuuti rek benn waay daal di ñëw ñu yónni ko ñetti téeméer ne ko boo demee nga joxal ñu ko sëñ ba nekk fële mu romb benn yalwaankat affaire bi yërëmtalu lool mu jën jël ci ñetti dërëm sarax ko yalwaankat ba ba mu ñëwee ne ko sëñ bi de lii àddee la ñu ne moom sëriñ bi compte ko ne ko déedéet manqué na de mu daal di rey ne ko waaw wax na nga dëgg de manqué na de jël naa ci ñetti dërëm saraxe ko de ne ko déet yow dañ laa ko waxoon mu ne ko déedéet waaye damaa xam ne rek yàlla buy buy ful da koy natt ñetti dërëm laa joxe woon daf ma wóor ne rek dërëm bu ne daf ma ko fulal téeméer moo tax ma xam ne manqué na kon gis nga looy def yàlla man na la koo delloosil ca na mu gën a bëree su fekkee yàlla rek ka tax nga def ko mahmoud al misri ma ngay wax ci terem ba waa xamne ne dafa ne ci aj ñak diko di bëgg ray moy dox bam mu rek mu for ben kalpe kalpe bo xamne ne dinar mo ci nek jinni dinar xaaliss bu bari la de mu mu mu mu xool ko ak fi tollu ci ñak amut ben mbokk màkk amut kenn kum yaakar waye nag alal ji momu ko dako for mu toore deg ku nan ku for dara ku for dara mu kar waji ji ne ko loo réerle mu ne ko yow lo for mu ne ko wax ma li nga réerle lan la mu ne ko man de xaalis mu ne ñaata la mu ne ko mu ne kalpe benum nu mel mu wax ko ko mu ne ko mu ngi ni man mako for bimne man mako for bëgg ko ko jox waji ji ne ko téyel taxawal ma wan la mu taxaw diko xaar waji konté juroom ñen fukki jinni ak juroom ñent ci ay dinar, ne ko am ya ko mom mu ne ko luy mu ko dama don acc ci makka borom jox ma téeméeri junni dinar ne so soo nak mako joxal ku wor manam ko xamné dal du du du wor kat du kat du sacc du trian koku nga makoy joxal té man wa makka xana duma top nit ñi di laacc naan señ bi ndax yow trian kat nga est-ce que yow wor nga mané na sét pexé mo xamné suma ko défé dana xam ndax ki ku wor la am déet téeméeri jinni suma ci rotalé ben jinni ku ko for wane ko rek xam naa ne kii ku wóor la kon lii ko moom kon gis nga ne li li li li li sëriñ bi doon wax ne bàyyi nee na njula gaa ngi ci yàlla xol yi ñoo bañ ñàkkam nga gis nga nam méttee ah lam réer la noonu lam for noonu xam nga ne moos amoon na fu mu ko fu mu ko jaarale waaye ngir yàlla tax mu won ko gannaaw yàlla jox ko lu ëpp lam ñàkk kon nee ñi joxe ci yoonu dafa mel ni daal lañ leen di fulandee sax ëpp na loolu ndax wallahu yudaa'ifu liman yashaa'u ma nga fa yàlla day fulandeel ka ko neex kon ñiy joxe ci yoonu yàlla ñetti xaaj lañ koo xam ne bu joxee benn yàlla fay ko fukk ak koo xam ne bu joxee benn yàlla fay ko juróom-ñaari téeméer ak koo xam ne la ko yàllay fay moom du ko natt du ko compter day tib rek di ko jox ñoom ñëpp nag mu ngi aju ci xol ba ba aje ba muy joxe fan la xolam toll nu xolam gën a ajoo ci yàlla rek fay ga gën a bëri mooy wali kullin darajaatun mimma amilu alladina ñi nga xam ne yunfiquuna dañuy fere am waalum seen alal fi sabilillahi ci yoonu yàlla summa laa yutbiuuna topp duñ toftal ma anfaqoo lañ fere man nan ñax wala adan du caageen loraange lahum ñeel ne leen ajurum seen ak pay inda rabbihim fa seen borom wala xawfun déet ragal alayhim ci ñoom wala hum déet ñoom yaxzanuuna ñuy jàq nee na ñi nga xam ne ñoom bu ñuy fere seen alal ci yoonu yàlla buñ paree duñ ca toftal ñax ñax mooy xam nga ne baax naa ci yow de yow yow de man xaw ma kenn waay war nga maa gërëm de xam nga ne bu dootoon ak man nangam wax borom loolu directement day yàq day yàq li nga joxe afsatta bil ni ma asdayta min amalin laysa al karimu ida asda bi man naani waykat ba neena la nga defoon ci lu baax yàq nga ko ndax yaa fa nekk di wax waa ji naan ko maa la teree torox baax naa ci yow loolu boo ko defee la nga defoon yëpp day mujj yàqu azan nag mooy di jëw boroom xam nga man moom yaa ngi jàkkaarloog borom naan ko war nga maa gërëm de azan nag mooy bu demee nga neen ah waaw moom day font rek bu ma ko toppoon xam nga ne du ma ko defal dara li muy bon ba dee ah nanguut a liggéey nanguut a def nangam bon ba dee bërki démb laa ko fi leb mu bañ te booba am na waaye nag du ma ko topp xam nga kon léegi yow yaa ngi koy jëw jëw yooy nga koy jëw nag moo tax la nga joxe far mujj na yàqu qawlun wax maarufun juñ xam oh, wax ju rafet wa maxfiratun ak bale te suturaal borom xayrun moo gën min sadaqatin ci sarax soo xam ne yatba'uha azan ay loraangee ca nar a topp nit ki ñëw ñaan si la wala mu leb si la wala mu yalwaan si nga wax ko wax ju rafet layal ko lay yu rafet te jànnewoo ko sax day moo gën nga jox ko ba pare te boo fa bàyyeekoo di wax ci moom naka sa du noonu wallaahu yàlla ganiyun aji oomal la xalimun te ku lewet la yaa ayyuha alladina amanu yéen ñoo xam ne gëm ngeen yàlla laa tubtilu bu leen yàq sadaqaat sadaqaatikum seen sarax yi bil man ni ci ñax wala adaa ak i lore kallazi mel ni ki nga xam ne yunfiqu dafay feere maalahu alalam riyaa naas ngir njistal nit ñi rek pour nit ñi xam ne diwa ngay dimbale diw wala diw joxe na nangam wala yuminu te moom gëmut sax billaahi ci yàlla wala yawmil aaxir gëmut bés penc fa masaluhu misaalam ka masali safwaanin dafa mel ni da doj war a tax xam ne ala yi nekk na ca kawam turaabun suuf fa asaaboo jot ko waabilun aw waame xam nga ne moos waame lum romb da koy yóbbu waxuma laak ci kaw doj war a tax waxuma suuf fa tarakawo mu bàyyi ko saldan muy aji leer muy aji set wecc laa na duñ man ala ala cheyin dara mi maa kasaboo ca lañ fàggoon ñoom lañ jotoon a fàggu dara du leen ca duñ ci dese dara dara la leen dul jëriñ wallahu yàlla laa du du gindi al qawma ni ñal kafirina ñu daway weddi wa masalul ladina way misalam ñi nga xam ne nag yunfiquuna dañuy am walahum seen alal ibtigaa llahi ngir ngir mandel yalla wa tasbitan ak saxal mi anfusim sen bop ngir saxal ab yool ngir yo may tiyaba seen bop ñom ko masali habatin dafa mel dafa ko masali jannatin dafa melni ni deur bo xamne bi rob dafa nek ci montagne asaba jot ko waabilun tawab wame fa atat mu joxe ukula meññitam ma difay ni ñaaram lam waroon a meññ ci at mi ñaaram la meññi ngir nangu gum nangu fa in lam yusibha bu fekkee jotu ko waabilun aw waame fa tallun tawab ñepp-ñepp boog wallaahu yàlla basirun ay gis la bi maa taamaloona ci li ngeen di jëf tool bu mel noonu nekk place bu mel noonu moom bu fekkoonte ne sax taw ba xanaa ñepp-ñepp la sax man naa tax far mu mu mu meññi ayawaddu ndax dana bëgg ahadukum kenn ci yéen an na muy nekk law ñeel ko jannatun ab tool min naxiilin ci toolu tàndarma wa anaabin ak i raisin tajri dana mu daw min taxtihaa ca ronam al anhaaru ay sewnde law ñeel na ko fiyaa ca tool ba min kulli samaraati bépp xeeti meññet wa asaabahul kibaru mu dem ba mage wala wuute am na zurriyatun ay doom duafaa yu néew doole fa asaaba jot tool ba nag insaarun ngelaw lu tar loo xam ne fii nekk na ca ngelaw la naarun safara faxtaraqat tool ba daal di lakk kadalika nu mel noonu nag yu bayinu laaw la yàlla biralee lakum ñee leen al ayaati ayaam yi laalakum ndax yéen na ngeen xalaat nee na misaalam kii def lu baax loo xam ne yéen a jarafetut mu dem a dem ba ca fin lam defoon ci lu baax yëpp yàqu da koo misaalee koo xam ne dafa am tool bu bu baax bu naat buy meññi façon meññet bu ne façon ndox yu nekk ma nga fa moom nag njaboot gu ndaw la am mu dem ba màggat rek ak daay jaar fa rek lakk tool ba yëpp lépp yàqu xam nga bu doon sax dafa nekk ba muy ndaw day dem jëmbataat tool ba waaye ba mu demee ba nekk mag kàttanal di jëmbat mënatu koo am te alal jëm yaakaaroon yàqu na te doomam yi ay ñu ndaw lañ mënuñoo jëmbat yaakaar ju tasee noonu nee na am na façon jaamu yàlla yoo xam ne am na yooyu boo ko ca defee noonu la jaamu yàlla ga di yàqu wala a'uuzu billaahi yaa ayyuha alladina amanu yéen ñu wax ne gëm ngeen yàlla anfiqu feere leen min min tayibaati way teey la nga xam ne kasabtum fàggu ngeen ko wa mimma axrajnaa lakum ak liñ leen génneen min al ard ci suuf si wala tayammamu bu leen jublu alxabisa lu bon min hu ca loola tunfiquuna ngeen di ko joxe walastum bi aaxizi yi tenaru leen ko woon a jël ilaa an tuxmidu ludu da ngeen a da ngeen a gëmmu ca loola waale moo leen ne anna allah nag yàlla ganiyun ko oomal la ba li ngeen di joxe ci alal soxlu wu ca dara xamidun ku yeeyu cant nga ku yeeyu cant la nee na dee leen ci joxe waaye bu ngeen ciy joxe bu leen seet la gën a ñàkk solo la gën a bon ngeen tànn ko di ko saraxe lu baax la geen dencal ko seen bopp dafa am ñu ko daan def bu daan génne asaka dañuy seet la gën a ba la gën a baax mbokkam Pa Assane ma ba muy génne asaka am ja bañ demee ba kont ko dafa ñëw xool xool asaka ji xool dugubam ji bi mu ko nattalee ne ah xam naa moom de kenn ëpp ko sens ba yëpp bayaanu lii yëpp mu am ko ci sama tool bi dem ba mu yàgg doom jooyut jabar laajut dépense na ko yàlla wecci jox yu rafet yi bépp jox bu rafet bu nekk ci asaka ja rek mu jël ko yóbbu ko ca dugubam ja jël jox yu ñaaw yi yóbbu ca ca ca asaka ja mu ne parce que yàlla moom comme amu ci soxla te moom lañ koy jox moom pour mu wecc ko ko loolu du ko lor ba mu demee ba mu yàgg mu ne waaye daal comme noonu la moom xam naa soxlaagu ko nee nañ moom mu ne fu nekk. te dara ump ko te lii man moom laa ko fi defal boobu ba léegi jël siwu ko xëy na da cee amagut soxla waaye léegi daal nama ko lebal rek man heure bu ko soxlaa dinaa ko jox asaka ji yëpp da ko faroon mujj dugalaat ci dugub ji loolu la yàlla waa aaye ne bu leen jël lu bon la joxe ko bu ngeen di saraxe lu baax la ngeen denc ko te loola ngay joxe kat ku la ko doon joxe yow boo koy joxe boo koy jël itam da nga dummóoyu ndax bon gum bon mu ne na ngeen xam ne yàlla oomal na ba li nga koy jox soxlawu ko te yoon na nga sant ko ba lum la laaj nga jox ko ko ashaytaanu saytaane nag yaidukum al faqra moom daf leen di tëkkoo ñàkk wa yamurukum mu leen di digal bil faxshaay ci ñaawteef bépp buñ laajee ci yàlla saytaane lim lay wax mooy boo ko joxee da ngay ñàkk moom loolu la lay tëkkoo di la digal lu bon wallahu yàlla nag moom yaidukum daf leen di dëhal maxfiratan jéggal min hu mu tukkee fa moom wa fadlan ak ngëneel wallahu yàlla waasewoon aji yaatu la alimun aji xam la yuutil xikmata dafay jox xam-xam man yashaaw ka neex na mu ko wa man yuutal xikmata képp koo xamante ne joxeef na ko xam-xam faqad uutiye joxeef na ko xayran kasiran yiw wu bëree bëree bëri képp ku yàlla jox xam-xam ab xikma daal jox na la yiw wu bëree bëree bëri te xam-xamu xikma xam-xam yi firi nañ ko ay firi yin yu bëree bëri te uute bokk na ci firi yiñ ko firi mooy xam-xam boo xam ne daal balaa moo jëriñ ki koy dégg ka koy wax lay njëkk a jëriñ ba pare loolu bokk na ci firi yiñ ko firee wamaa yazakkaru du waaru illaa ulul albaabi lu dul borom xel yi ma wa maa anfaqtum lépp lu ngeen fere min nafaqatin cib dépense muy asaka wala sarax aw nazartum wala ngeen nizar ko min nazrin ci nizar ngeen matal ko te nizar mooy su ma yàlla defalee nangam day danaa def nangam su ma amoon nangam danaa saraxe nangam loolu mooy nizar nee na lépp lu ngeen ci def nag bu ngeen ko matalee fa inna allaha naka yàlla yaalamuhu dana mu xam ko wa maa li zaalimina déet di ñeel way tooñ yi min ansaarin ay ndimbal képp koo xam ne tooñkat nga kenn ku lay dimbale du am bu keroo yowmal qiyaamee nee na bàyyi na loolu in tubdu sadaqaati mu ngi wax ci sarax ndax moom booy saraxee di joxe ngir yàlla ndax man nga koo feeñal nit ñi gis ko wala da ko war a nëbbu wala lu ci gën loolu la alquran ne in tubdu sadaqaati su ngeen feeñalee sarax yi ba ñëpp xam ne diwa ngay joxe joxe na nangam fa ni'ma hiya def ngeen lu baax wa in tuxfuha waaye su ngeen ko nëbbee wa tuutu al a ngeen yoot jox ko ñu ñàkk ña fa huwa xayrun lakum moo gën ci yéen gis nga bi mu njëkk a wax nee na baax na bu mujj bi mu ne moo gën ci yéen loolu nag boroom xam-xam yi liñ ko firee mooy dañuy xool kii saraxe ak ki ñuy sarax maanaam kiy joxe ak ki ñuy jox kii bu fekkente ne dépense lay laaj ñeenti téeméer mooy dépense am yow am nga ñeenti téeméer nga yor ndank jox ko ko kenn du yek lolu mo gën moo ëpp tuyaaba mo upp sutura way na ki ab ordonnance la am 100000 francs la yow amoolu moy ñent témèr yow ñent témèr boko ko jariñu dara ci ordonnance bi nga fexé nak ba ñepp yek ne joxe nga ñent témèr diw joxe na nangam kenn ku ne ah kon de xaaral ma joxe ci kenn ku nekk sa ité yee sa ité morom ndax 100000 francs yi mëna dajé daje su boba lola gën kon am na foo xam ne bu ñuy sot xam ne lii kenn mënu koo régler mbooloo ko mën a régler ñi di sot su boobaa feeñal ga moo gën ndax heure boo xamante ne diw sàngam joxe na téeméer dana puus meneen diw sangam moom mu joxe ñaari téeméer parce que xam na ne diw sangam kat li jamono naqadi na naqadi goo xam ne lum man war naa man moom ñaaram kon nag moom ñaari am yooyu li tax mu génn mooy lim yëg ne diw sàngam joxe na téeméer te yonentu sallallahu alayhi wa daka daan def léeg-léegaan mu toog jataay yoo xam ne kenn ku nekk la nga joxe dañ ko doon wax gis nga am na jataay boo xam ne ba ñuy dajale te mooy xare biñ doon junj léegi Seydina Ali ibn Abi Talib comme yonentu sallallahu alayhi wa laaj laajte ji na laaj laaj na dafa dem saadu ji ba mu demee ñi fay ko mu xaaj ko lenn la mu joxe ko dépense lenn la mu ñëw saraxe ko ba mu koy joxe nag fekk naa fekk yaa ngi fay toog ñi okkante naan xoolal li muy joxe kilifa gu toll ni moom xoolal li joxe ba alquran nang leen di tontu Seydina Ousmane lam joxe woon kenn ku nekk yaa ngi koy jàng ci téere taarix yi ñu joxe na nangam joxe na nangami gileem joxe na nangami fas joxe na nangam bu fekkoon joxe ci mbooloo ñi xam ko wax ko dafa bon konoon yonent sallallahu alayhi wa sallam da koy tere wax na ca ne ñi nga xam ne dañuy joxe seen alal ci yoonu yàlla. billayli wan nahaari sirran wa alaaniyatan di ko joxe guddi di ko joxe bëccëg di ko joxe di ko fàngaaral léeg-léeg wala ñu di ko joxe di ko yalu léeg-léeg am na ci saaba yi ñoo xam ne daan nañ joxe loo xam ne kenn du ko yëg dañuy yoot rek joxe ko gis ngeen waa jooju mosoon a ñëw ci kër yonent ci ci jàkka yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi yonent bi sallallahu dafay waxtaan ba pare daan ne ah man ne am naa gante tey sama kër reer amu fa de kan moo ma yóbbul sama gan gi pour mu reeree ji këram benn waay yëkkati loxoom ne ko nañ ànd dem suñ kër mu reere foofa gis nga yonent sallallahu alayhi wa sallam da daan ñàkk ba këram duñ reer mu ànd ak njaatige ji njaatige ji waaxu rek daal di dugg ci néeg bi woo jabar ji ne ko nag dañoo am gan yonent sallallahu alayhi wa sallam moo ko fi yebal nee na na fi reeree te yow xam nga ne reer bi doyut mu ne ko waaw mu ne ko naxal xale yi ñu tëdd nelaw su ko defee maag yow ak gan gi ñu bokk reer bi dañuy fay làmp bi nag su ko defee ñuy màcc suñ loxo yi bu ko defee mu yaakaar na ñu ngi lekk ndax mu mën a lekk bu baax gaa yi dugg ci néeg bi rek fay lampe bi di màcc seen loxo yi rek gan gi moom di lekk rek di lekk loo xam ne moo doon réerab kër gi xam nga benn waay bu ko bu ko lekkee nag wax dëgg yàlla war am lu mu muñee ba mu paree nag dellu ci yonent sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko mbaa reer nga mu ne ko reer bu bëree bëri reer nañ ba suur te xamul ne sax moom kenn moo reer reer ba alquran moo wàcc ne wa yu'thiruna ala anfusihim walaw kaana bihim xasaasatun ñoom de buñ amee dara nañ sax fàtte seen bopp jox ko keneen donte amoon nañ ci soxla yonent laaj leen nag ñu door a nettale affaire ba nam demee dëgg-dëgg kon gis ne daan nañ joxe te kenn du ko yëg parce que kooku reer boobu ñoom seen benn reer boobu mën naa régler soxla si waa ji moo tax fexe nañ ba kenn yëgut waa ji sax xamutoon ne ñu moom moom la ñuy moom kese moo reer kon léeg-léeg sarax fexe ba kenn du ko yëg moo gën amoon na benn sufiyanke boo xam ne Zeynul Abidin benn sëtu Seydina Ali da daan toog ba guddi ba mu lëndam rek mu jël ay saako rek di daja di saare ci buntu kër yi buntu kër gu mu dem rek teg fa saako rek dem buñ xëyee rek gis saako yi ñaan waaw lii lan la waaye lii de xam na borom da koy saraxe rek ñu jël kenn mës ta xam ku koy joxe ndax heure bi muy dem dana fexe ba kenn du ko yëg gannaaw bu mu génnee àdduna kenn gisatut saako yi rek lañ xam ne lii kat moom moo ko daan def kon sarax léeg-léeg nëbb ko mooy gën léeg-léeg sax nag feeñal ko mooy gën nëbb googu sax ma ne danger la man ngaa toog ci biiri nit ñëpp di joxe nga yor ndànk génne aw kayit ropp ba gis ne am na ku la xool nga okk kenn ne ko joxeel waaye man bu ñu wax sama tur ko defee saytaane xam nga lu mu bëgg gëm loola ne la ñaar ñi la ñaar ñi nga xam ne ñoom gis nañ la ñoom ñooñu bu ñu fa jógee danañ la waxtaane ne kii moo ragal yàlla kii moo sell bi mu koy joxe bëggut sax nit ñi yëg fekk kaddu gogu rek la saytane bëgg nga gëm ko yow ci sa bop ba japp ne kon ñafa joxe yeb ya leen gën la yow kenn ya sell leen parce que yow da nga sacc joxe te fekk bi ngay sacc kat xam nga ne am nañu la gis lolu saytane man na fa jaaree yakal la kon neena wamali wamali zalimin de di ñeel tooñkat yi min am saari ndimbal intum do sadaqati bu ngeen feñe sarax yi fa ni'ma hiya baax la ngeen def way wa in tuxfuwa bu ngeen ko nebbe wa tuutuwa al fuqara ngeen jox ko way ñak yi فهو خير لكم موغن تي ين ونكفر دنا كافر عنكم تي من سيئاتكم سير نياتي والله يلا خبير اجي دنجكم بل ما تعملون تي لين ديف اللهم صل على سيدنا محمد وسلم لو نتي وقت خطا يلا يلا جيغل نتي لين تي وقت ثواب يلا يلا بن نتي ابي كون با سامد جام لا ني داجي سيوات في ان شاء الله صبح اجي مانا دني نوبلو كون نيغي غرم ني دون تيولو فيرم ييب دي غرم سيني كاميرامان باي لامين سيسي اك باي توك كي باي فيلان تي في Euh, di gërëm tam suñu technicien ba nekk fële ca Kaffrine FM 88 point 5 muy Babacar Cissé seen mbokkam taalibe la woon Mouhamad